réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. Les Patriotes TV. Guy Marius Sagna moom la ki nga xamante ni moo di Moustapha Diop invité foofu noonu sa groupe Walfadjri tey jii si dimanche bi yemook fukki fan ak benn si weeru février 2024 Moustapha Diop laaj ko naka nga gisee ñi nga xamante ni ñoom la ñuy rey si manifestation yi à chaque fois te bu paree dala du si maanaam du am benn suite maam duñ si ubbi ab enquête. mu ne ko ba fàttalikoo si commissariat yi si la njëkkee woon mën nañ ne dañ leen daan jàpp fu mel ni police wala sax fi nga xamante ni moo di si commissariat pour euh, gendarmerie yi te à chaque fois dañuy gis ay xale di fa dee te bu pare nag duñ ci ubbi benn enquête mu mel ni gouvernement bu ki nga xamante ni moo di président Macky Sall maanaam dafa jox li nga xamante ni moo di suñu ay takk der ay licence yoo xamante ni mën nañuy rey te duñ leen mujj fenn. te jamono boobee nag mën nañ ne boobu noonu lii nii lépp xewaguloon te loole nag lu jot lu jara moytu la maanaam ñu moytu di joxe ñi nga xamante ni ñenn si takk der yi ay permis yoo xamante ni mën nañu rey te du mujj fenn. si adduna bi nag am na ay président yoo xamante ni maanaam baaxuñ waxuñu baaxuma si baaxuñ si Afrique sax waaye si àdduna bi la ñu baaxul parce que nag à chaque fois dañuy bëgg di am ay takk der yoo xamante ni maanaam dañuy rey te kenn du leen siise. te loolee nag lu jora moytu la bu fekkoon na nag ab takk der boo xamante nii bu def njombe la ñu taxaw kat atte la wala ñu yóbbu la si prison bi yaakaar naa ne kon say morom kenn du ko def ndax nag bu koy def dina xalaat ne kat diw sàngam kat mais defoon na ko te bi mu ko defee dañ ko yóbbu si prison ba. waaye fàttewul tamit manifestation bi nga xamante ni si lañu génn rek barki démb boo njaay si àjjuma ji ñu gis benn femme boo xamante ni policier bi da ko mbéj ba noppi daal di koy wéq ba gere faasam bi daal di wadd gis tamit benn handicapé boo xamante ni dafa nekk si puus-puusam yor li nga xamante ni moo di benn drapeau am moom it ñu gis maam takk der yi ñoom it di ko ne noo xamante ni daal rafetul benn yoon si li nga xamante ni moo di si gis-gis di kaddu ni moo di Guy Marius Sagna bi ñu ko tey foofu noonu sa Walfadjri